nee na ñëpp Cheikh Tidiane Niang nee na ñëpp day lamb xale la ndeysaan cey Cheikh ma nga noonu màtt na Cheikh Tidiane Niang wallahi ku ko gis nii mu toll nga ko matul matul cent cinquante kilos waaye ñi xoolu leen comme ci jàpp nga xam ni champion la waaw waaw loo ah loo yëg ndam nga ñëw koom dama koy jël lamb dama koy jël incha bu soobee yàlla dama koy jël lu leer laa lay tegal <laughs> tegtal la wala bot say bot ubbil say bot ñaan incha allah waaw ragal ma loolu jaajëf Cheikh Tidiane loolu de ci gëm sa bopp la bokk. final Jax production arène nationale le 29 décembre 2019 Ndeysaan ñaari xale yi ay jàmbaar lañ muy Ngor Ñaax ak Latir bu Jaxaaw Latir daw na jël ko Ngor Ñaax jël na ko dina ko daan wala déet Ngor Ñaax war na ko ndomba Ngor Ñaax lu mu nar. Mor Niakh mu ngi ko nar Mor Niakh lu mu nar Latir Mor Niakh daan na ko oh! Mor Niakh jël na final ba Mor Niakh jël na final ba Mor Niakh jël na final ba Mor Niakh jël na final ba ndeysaan géew bi cey lamb lamb ngi nii mbokk yi Cheikh Tidiane ngi nii mooy finalu Jax production le 29 décembre 2019 une date à retenir. ndeysaan ndeysaan sëñ Bas. takk na ci ndigli moom it mooy finalu ndeysaan maam lees maa ngi lay nuyu ndeysaan Elimine François Gomis a ngi noonu

adversaire yàlla def ba nga dem final njàmbaar la wala ndimbalu suñu borom. waaw ñaar yëpp la bàyyi jiili ñaar yëpp la parce que borom bi la may wër ak tal nga nekk fekk say morom ak say maas bokk li ngeen soxla bokk li ngeen di ñaan yàlla jagleel leen ko ngeen war a finalu ndimbalu suñu borom la mais ak njàmbaar euh, moo ci moo ci fees dell parce que ñi fi dëgg mais doole gi ci xam-xam a ngi ci ndax lamb xam-xam la ak doole boo ko boolee mu jox la lamb lamb boo ci génnee xam-xam ak doole bàyyi ji li nekkatul dara xeexu mbedd la waaye nekkatul lamb maa la wax loolu. Elimine François Gomis jël na ko Cheikh Tidiane jël na ko génn na saako yi eh, Cheikh Tidiane sàcc na ko jël tànk ak Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane daw na jëli ko bañ na Franc Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane taxabal na ko mu bañ Franc ndeysaan oh! final bi ndeysaan Cheikh Tidiane moo ngem moo ngem lu xonq li mbokki ma ngay daw jëlaat na ko maa du Ndeysaan daw a jël ko mu bañ Ndeysaan élimine François Gomis ak Cheikh Tidiane Niang Ndeysaan ñu ngi ci compétition bi ba tey bi ba

ñaari mbëru simple ñaari mbëru waada ñaari mbër yoo xamante ne fu ñu duggee ci làmb nga xam ne ay borom jom lañ muy Cheikh Tidiane muy François Gomis Cheikh Tidiane daw na jëlaat ba déet ma nga biit bañ na Cheikh Tidiane nga koy fàqat tibb na suuf Cheikh Tidiane élimine France Franc na Franc daan na Cheikh Tidiane Niang ndeysaan Franc daan na Cheikh Tidiane Niang cey lamb Franc daan na Cheikh Tidiane Niang bas Cheikh Tidiane dem ba final ñàkk di jooy dafa bëgg ndam ndeysaan ndeysaan ay Cheikh bu jooy tey nga ñëw ci compétition bi bett ñu bari kenn yëgul sa ñëw si jóge États-Unis ñëw Sénégal nga ñëw sa première compétition nga jël ko loo yëg. waaw di sant yàlla rek fi moom yàlla rek fi mën a. Ah, ah. wax dëgg yàlla. merci waay yàlla rek fi mën de wax dëgg yàlla. sant sama yaay bu baax sama papa. sant samay xarit bu baax. oui. ana waa États-Unis. après après ñoo ñëw waxtaan yow. Ah, leer na kañ laay ñëw ma ñëw suba. heure ndeysaan ndeysaan Franc Franc Basiru jëlal François yi noonu ndeysaan élimine François Gomis xale baa ngi noonu moo jël final bi Jax production arène nationale le 29 décembre 2019 histoire da koy nettali Franc wuy ma Franc laa bëgg jël. Odo xaaral xaaral la jël dinaa la jël. Franc mooy actualité bi. waaw ñëw war daaw kenn ku ne xam ne affaire ni mu demee. ah gis nga affaire ni mu demee woon. daaw compétit naa trois quatre gala yëpp maa ko te yu mag la. waaw yooyu moo fi amoon de yu mag waaw. nga jël waaw léegi ren nga ñëwaat. waaw ren ma ñëwaat vraiment di nuyu sama père maam père ba Mansour Gora xam nga sama grand bi ñoom xam nga rek. Euh. mais da hmm? waaw tey laay soog ubbi quoi. waaw daj yàlla rek. waaw fii yàlla rek fi ne. yàlla moo fi mën mënu ma leen mënu ma fi kenn yàlla moo fi mën xam di ñaan. yàlla beneen yoon bu dee sama wërsëg la yàlla naa ko jël rek bu dul sama wërsëg kenn na ko jël. non man dama ñëw si lu simple pour yokk sama xam-xam xam-xam bi dafa des loolu kese la. bëre bi am naa ci komba fu mu toll nii. Bébé laa ci amal combat. le 8 mars. incha allah dañu fii. waaw champion rek affaire yi moo doon demee nii rek vraiment. oui mais champion la rek. ngeen waaw. après éliminé ma keneen ku ma éliminé de. xaw ma ñoo éliminé. ah. ñi nga daan defe naa champion yooyu ñëpp ay champion lañu vraiment. waaw wax lan ngay wax monde lutte di gërëm ñëpp di sant ñëpp. vraiment. waaw lan ngay wax di leen wax ñun làmb lañu am te ay xale lañ dañuy góorgóorlu. parce que li ñu def nii tamit aussi day tax ñun tey ji ku ci waroon jël yoon bu bon doo danga koy bàyyi ñëw fii nii. parce que ñëw arène sant yàlla rek encore une fois xam nga yàlla rek moo fi nekk. waaw kontaan